maa ngi tudd Malick Sow di expert en agroécologie euh, nek nag euh, tay ci ben mission de mobilisation sociale ak euh, communautaire ak waa SICODEV. lu ba ci njëkk seetlu moy intérêt gi nga xamé ni dañ ko am après su ma fekkee jël na intervention mu nak li nga xamé ni kon mel na ni dal mbir mi intéressé na leen mais dañu xamul won fan lañu ñu information bi parce que chaque fois gis ni à chaque à chacune de mes interventions la yi day bari lool. kon nag muy lu nga xamee ni en tout cas man ça me parle na ci waxtaan ak waa SICODEF ñu xool nan la mën a fexe ba lii nga xam ne xew na fii tey mu doon ab porte d'entrée bu ñu mën a jaar en tout cas pour gën sensibiliser les sur comment nan la ñu mën a fexe ba lekk-lekk gu sell waaye it baykat yi ban xibaar lañ leen mën a jox ba ñu mën xam yan pexe la ñu mën a teg ba di mën di bay sans ñu utiliser tooke ni engrais chimique nii produit chimique. c'est vrai que nag euh, ci lu ma jot a seetlu mooy ni nit ñi euh, bët la ñuy euh, jëndee. dañuy xool dem ci marché bi mu taaru euh, comme batanse melax euh, mel nu mu war a mel rek ñu ne baax na waaye euh, dina xaw a jafe ci tàng-tàng bi ñu nga xamee ko waaye boo demee ba ci kanam ngay seetlu tuuti dina benn xibaar bi nga xam ne xibaar gu gu lay bën a tegtal la muy nii bépp produit bi nga xamee dafa am pesticide weñ bu ñëwee ñaare daf koy daw loolu daal xibaar la waaye nag balaa moo na nekk faw ñu dag produit bi parce que mënul laal der bi rek xamee ko mais bo daggee produit bi nga teg ko di gis ni bañ bu ñëw bu ci teg rek day fay daw parce que ñoom amuñu xel way am nañu instinct kat yi que ñu gëna jëgé euh, xam-xam yu wees yi té tay dem nañu ba comprendre nañu ni ñom dañuy faral di jëfëndiko engrais euh, azote phosphore potasse manam NPK bi mais tay amna ay xibaar yu nga xamé ni mën nañu remplacer euh, molécule yoyu ak des éléments organiques ñu jël tamit ni produit yu nga xam moom la jël di ko ci gàncax gi muy den euh, aar ci euh, ruur yi mën nañu fexe ba génne ay produits nga xamee ni produit yu naturel la te bu ko defee ci gàncax gi mu am exactement les mêmes effets du am ben gaañ-gaañ gu muy gaañ ba nit ki nga xam mooy consommer produit c'est achar tant que plus connu sur Achars tout À la base, j'ai été invité par le conseil qui m'a dit de venir parce qu'il y a une organisation qui est là, qui est venue partager sur des choses, mais il ne m'avait pas éclairci exactement. Maintenant, euh, par ma curiosité, j'ai dit je vais venir. Au commencement, ils ont parlé, mais quand ils parlaient, j'ai vu que c'est quelque chose qui, euh, voilà quoi, qui intéresse normalement euh, tous les Sénégalais et tous les citoyens de l'Afrique, même du monde. Parce que parler de l'arbre malnutrition, ou bien la bonne bouffe, ou bien la mauvaise bouffe, ça c'est quelque chose qui, voilà quoi, qui incombe à toute personne dans cette vie. Et je trouve ça très intéressant. Maintenant, venons particulièrement à ce qui concerne le Sénégal. le Sénégal, euh, à la base, nous, sommes une population qui aime se nourrir avec quelque chose qui est un peu, comment dirais hmm, qui a du goût épicer et consorts. Mais ils ne savent pas comment épicer leur plat. Donc aujourd'hui, j'ai appris qu'effectivement, on peut cuisiner sans pour autant utiliser certaines astuces que nous avons l'habitude d'utiliser. Je ne veux pas dénigrer l'entreprise de quiconque, mais ces choses qu'on appelle des bouillons, c'est à, éviter. Et je vois que, mais on le sensibilise durant des années, mais c'est quelque chose qui ne change pas. Donc c'est quoi le problème Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation ou bien une question de manque de volonté mais je pense que c'est possible, parce qu'auparavant, on ne connaissait pas ces choses-là, mais on, se nourrissait très bien. Donc, pour revenir, faire revenir cette chose-là, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais pas impossible, mais qui est possible, mais qui est très difficile. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation et de rencontres et, d'accompagnement aussi. Parce que quand tu dis aux gens de, quitter, le, de, ne plus cuisiner avec les bouillons, mais peuvent cuisiner avec euh, autre chose pour remplacer les mêmes épices là par rapport aux bouillons, en grosso modo, c'est ça et c'est très intéressant. En fait, euh, ça, c'est un aspect très large. Quand tu parles des agriculteurs, le message que je peux lancer en est que, voilà, qu'ils s'efforcent, surtout euh, euh, dans l'agriculture bio et semi-naturel, je peux dire, parce qu'ils ne peuvent pas aussi quitter 100% les productions qu'ils prennent pour pouvoir garder leur culture. On comprend parce qu'ils manquent d'accompagnement. Je les vois ici, ils essayent, mais ils ne sont pas 100% industriels. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est de continuer l'effort de pouvoir utiliser les engrais naturels, tu vois, les pesticides naturels comme le nima qu'on vient de citer ici et beaucoup de choses comme le piment, beaucoup de, beaucoup de points. Donc, moi je ne le dirai pas les agriculteurs, mais ceux qui sont là pour aider les agriculteurs à être sensibilisés, à les aider, à leur montrer des techniques et des astuces pour pouvoir gérer tout ça pour qu'ils puissent rentrer dans cette agriculture. Je suis conseiller municipal, quatrième adjoint au maire. nekkit baykat si ma gis ñu jox ta waxtane fi man fekk na seeni i même à la mairie muy lu am njëriñ ci doomu adama yeb muy lu am solo ah, di ñaan li ñuy dox ni ñun den yalla nañ ko réussir surtout cantine scolaire bi loolu lañuy ñaan parce que xalé yi bu ñu amee gu sel rek am wër de leuk ay mag ah, bay dafa metti eh, ki bay pour lek gu sel choona yi muy daj kanen ko du daj moo tax dama ne état moo waroon de wala si ko def bu fekkee ñooy ñooy jàppale baykat yi ñu jàppale béykat yi ne baykat yi ba ñu mën a bay bay bu sell bu ko defee ñeneen ñiy béy leneen dinañ ñëw fekk si leen ci loolu mais bu loolu amul béy mu sell mi du fi gaaw yaatu parce que da ngay béy am trois mois doo doo récolter booy bay mu sell kii bay béy leneen eh, quarante cinq jours mu récolter commencé récolter kon defe naa dafa laaj taxawaayu état organisme yu mel ni su ko def ñu ñëw jàppale béykat yi pour ñu mën a béy béy bu set. tool yi moom euh, lépp ay dëkkuwaay lañ ko bëgg a def te lii gën a garaaw mooy loolu euh, dëkk lu mu bon loo demoon France da ngay dox nii gis euh, garab yi si àll si dëkk biir dëkk bi biir Paris da ngay gis àll bu ami garab mais fii mënoo ko gis garab yëpp tey bu dañ leen di raser daaneel leen def ay tabax ay bâtiment suñu tool yëpp ñu ngi menace parce que ñu ngi def pôle joxe suñu tool yi jox ay promoteur pour ñu def ko ay kër loolu c'est très grave loolu état bi lu muy war a jóg la bàyyi nit ñeek seen tool yi ñuy bay ñu bay ko peut-être poumon vert am ci dëkk bi si la wér gi ëpp mais bu dee lépp ay euh, ciment la ak beton wér mënu fi am parce que doo gis gàncax gu lay wéral man fekk naa am na yu ma fekkoon mais am na yu ma fekkul mais xam naa ne maire jëloon na engagement ba ñoom ñëpp ñu rafetlu woon ko si ko def rafetlu ko si rafetlu ko mais nag comme dafa tardé. ah man si ñuy soññ maire pour ñu taxaw ci loolu sa bokk dès demee dinaa ko wax mu jéem parce que nit boo waxee dara tey li ñuy def suñu njariñ la surtout élèves yi école yi eh, cuisine scolaire yi loolu maire def si war a taxaw bu baax ah, man dinaa ko soññ pour mu taxaw ci comme maa ngi ci wetam incha allah. Khady Thiané Ndoye chargée de programme foofu di Sikodev Afrique. depuis mardi bu le passé ñu ngi fi Bambilor. donc dem nañ ci ay euh, village yu bare dem nañ Gorom 2 fa dem fa dem Bambilor 2 mbeut ñu ngi fi ci euh, pour euh, action de sensibilisation yoy ñuy def ak communauté yi ci walum lek bu sel mais aussi ci mbay mu mais tamit ci projet bi nga xamanteni bëgg nañ fi samp fournir école yi repas

Euh, ñi ne sa marché ba maanaam ñi nga xamante ni daal dañuy yëngu ci wàllum lekk ci gox bi ñoom ñëpp euh, participer nañ ci session yi waxtaan nañ ak ñoom jox nañu suñu ay xalaat jox nañu aussi li nga xamante ni moo tax mënuñu jëm ci lekkin bu sell mu doon aussi ay points yu am solo yoo xamante ni ñun suñu organisation dinañ ci mën a sukkandiku pour xalaat lan la Bambilor soxla pour que ñu mën ko indi de telle sorte que acteurs yi seen lekkin gëna mëna sel li nga xam aussi soxlon nañ ko ñu mën ko am euh, ci ni mu gëna a gaawee ak ci mu ni mu gëna yombé mu doon aussi ay session yo xamanteni dina jox ay idée yu bari siga parce que siga li ko tax a jóg xalaat ci walum lekk ci gox bi donc idée yoyu siga bi nañ ci liggéey pour mëna xol chaque zone chaque site chaque village lan lañ soxla pour euh, ña fa ña fa nekk di fa yeewoo mën a am lekk-lekkin bu sell. li ma ci mën a jàngat mooy mën naa ko wax ci ñetti point bi si njëkk mooy kontante waaw parce que vraiment dafa nekk projet boo xamante ni dafa toucher xale yi te ku wax xale rek wax nga euh, avenir dëkk bi donc ñoom ñëpp kontaan nañ ci projet bi ñu ngi toog di ko xaar di xaar démarrage bi leneen aussi li ma ci jàngat mooy que je sens que nit ñi daal soxla nañ encore ku leen gën jàng ku leen gën a jàngal ci wàllum lekk parce que euh, fu ñu dem rek dañuy gis ne nit ñi soxla nañ euh, dañuy poser yenn question yi poser yenn question yi euh, lan moo tax lii am lan moo tax lële am bu ñu bëggee aussi lekk-lekk bu sell fan lañ koy jëndee fan la nekk fan est-ce que disponible na mu doon ay question yoo xamante ni dalay jàngal ni nit ki yow li nga koy wax intéressé na ko te day soulever tamit yeneen problématique parce que ku ne wax waxum lekk ku ne euh, changer habitude alimentaire ku ne bàyyi ay ay ay saf-safal di nga di nga proposer leneen donc li nga comme niñ naan doo su ma la xàññee dara di nga ma proposer leneen loo xamante ni mooy alternative bi mu nekk euh, vraiment li ñu gis fii daal Bambilor mooy que nit ñi sawar nañ euh, ci projet bi bëgg nañ aussi ñu gën leen jàppale ñu gën a am euh, lekkin lekkin bu sell ci marché yi aussi euh, consommateur bi jënd ki nga xam te day dem di jënd bu demee mu mën a ràññee euh, produit yi nga xamante ni amul benn tooke ak produit yi légumes yi nga xamante ni dañ ko mbay si mbay mbay boo xamante ni du mbay bu sell donc mu nekk ay point yoo xamante ni gis nañ ko fi. waaw date bi moom fi mu nekk ni décembre bi di d'ici fin d'année bi. wala début janvier yaakaar nañ ñu dina cantine bi dina mën a cuisine bi sax laa war a wax dina mën a commencer parce que partenaires yëpp taxaw nañ euh, fi mu nekk nii collectivité territoriale maanaam maire moom la ñu war a xaar ndax moom moo war a euh, indi matériel bi donc matériel bi mooy lépp luy mbana Euh, lépp luy cin lépp luy gaz lépp luy frigo congélateur ni ñuy toggee donc commune bi moom moo jëloon euh, responsabilité moom moo engagé wu woon ne loolu dina ko teg pour que projet bi mën a démarrer fi mu nekk nii loolu la ñuy xaar bés bu yemboo rek ñu commencé togg commencé jox xale yi ñu lekk.